acca jërë ngeen jëf internet yi ba tey ñu ngi fii ci Pikine ginnaaw raay suñu waajur nag moom mii moo jur ki nga xam ne mooy Aziz Dabala doonoon ko ñu ràññee bu baax ci senegal mu doonoon ko am yar waaye tamit di def liggéeyam saa su nekk nit ñi di ko bàyyi xel yaay ñu ngi lay jaale li ñu bokk sa doom bi nga xam ne moo fi bàyyi ko yàlla na mu jaal yéen kay yéen laa ko war a jaal yéen nga xam ne yéen ànd chaque jour mais li ñu ko gis bariwul li muy si ñoom rek lay nekk kon njaal maa ngi maa ngi leen koy delloo jërëjëf jëf yaay li dal sa kaw metti na lool ndax am doom ñu xëy rek wala la sa doom wàññeeku na ana ko bëgg ngeen naqar bi metti rek ak mbetteel rek metti trop ak mbetteel ndax loo séntu woo prévoir ko sóoraale woo ko jaam ak pexe yàlla ak dogalam lu mu def rek noonu la lu ko neex mu def ci jaamam mu defee nank nangu ñu ngi ko nangu rek. dëgg ay ñeenti fan rek. 4 jours. waaw 4 jours daal la toll ndax dem naa caawe bu fekk ma sama rakk bi dafal ma fekk. waaw dafa xam nga dafa mën a euh, commenté fu mu nekk da ngay ree rek. mu tooñ sama rakk sama benn rakk mu tooñ ko mu ree ba doyul mu génn dem. ak lii à 3 jours daal la war a dem 3 jours. démb bi ma ñëwee asi bi te ñu ngi koy woo ba démb ba gis ñu ko ah asi fan la war a dem te mu booy fu mu war a dem daf may tàggu fu mu war a dem day yaay maa ngi dem béréb sàngam même Touba sax ñu bi dem Touba yaay rek dama koy prévoir ah laa am semaine ba ay cinq jours yooyu waaw waxoo ba mu des ay quatre jours yooyu ñetti fan asi woowu ma la asi xam naa fi mu nekk day leerul lii laa ci am lii léegi naw naw lay ne woor arkam bi dafay woon Touba mun ko ah na mun ko maa ngi woo Aziz ba son bi jotuma ko waaw maa ngi dem buntu këram def soñé naa foofu itam wuyuñ ma waaye du ma bougé du ma bougé tànk rek amatu la leer ñii de dañ ci am kese kese kese kese kese bi affaire bi amee dañ ko doon nëbb duñu ko nëbb ba ay trois heures du matin quatre heures na raak da ko yëg waaw waxuñu woon décédé à ah, Aziz waxuñu ko woon bu xale bu kii waali bi la wax waaye bu accident ko ndëm ñoom waaye xam naa yëg naa ko sama yaram. yëg naa ko sama yaram waa man ma nelaw ma bi defee tëf tëf tëf tëf tëf man ma nelaw man ma nelaw ak man tëdd ba nga xale yi demoon dem yóbbu ko yóbbu hôpital ñoo ñëw ma ma tëb ma gis ñuy jooy man kay xam ne dangeen maa am am lu xew ko yëgee man maa ko bu jëyee naa ko mujjee yëg. ñaawteef nañ ko def sa kaw doom ah xaaree woo ko woon donte ku nekk soo matalee da dem waaye ni ko defee dafa yéeme lool bi nga jotee xibaar bi ak enquête bi tamit fan la toll. xibaar bi ak xam nga ci dara xanaa ci liggéeyam rek ndax rey bi bëri na agression bi bëri na waaw rey bi bëri na trop te mu la rey du féete fenn du féete fenn moom boo ma jaaxal. léegi nag yoon mu war a def liggéeyam lu ko neex rek mu def yi woon bu fekkee dafa koy da koy gis teg ko ci règlement de compte baax na su fekkee da ko gis gis def lu ko neex te ñu xam ne loolu la waaye ñu ñàkk suñu doom ñàkk doom kenn mën koo remplacer bakkan kenn mën koo remplacer waaw ah, muñ rek muñ kese kese muñ doom. wax nañ leen kañ ngeen di jot ko wala. non wax nañ ñu ngi si xale yaa ngi sétéwoo. Mhm. actuellement ñu ngi sétéwoo ñu ngi ñu leen ko jot ba léegi waaw doon ko jure kii moo ko di bi daal jàmm yóbbu ko si teewul ñu nekk ni cee ñu nekk ko yàlla da nga ko xamoon moom la yónni fii su amee lu muy yónni fii la koy yónni muy xale bu baax xale bu yaru du xay bu teey su yónnee su yooyu ñëw toog fi jox ma li ma jox demaat. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.